lewatal saw nag say doom muy ay fruits yu saf suukar dugal sa kaar fiat dugal sa njaboot fekk Serigne Saliou Mbacké got ba nga egtee ba mu la laajee waral lii nga jug si naaju tàng wii ak sa njaboot ba ci berantal yi nga ni ko Mbacké xanaa sant si la kanam nga belli mu ne la kat bis ki tey yàlla bëgg na yonent bi bëgg na Serigne Touba bëgg na kon bu màggalam gii jotee nga ciy def nii nga ciy def man ku ma tegal kaamil mu waat ni Serigne Touba bëgg ndax ci sant ba ko jaar Serigne Saliou Mbacke la loolu ngay def lii nga xam ni moom nee na ku ci raw moo ta mu ñuy wax ngay jëf ñun nag sant nañu loolu suñu ba ñu ci boole ndax kat ah man de ci yow laa déggee ginaar bu ci gëlëm man li ma xamoon kat mooy ma yore sama ñaar fukk balaa boobu sax dama daan wut ma yóbbaale bu ñu ma indee bu ma amee sama ñaar fukk sama juróom dugg ci xabru yi topp di sànni weccit di ñaan dafa ni looloy màggal waaye ba ma àndeeg yow laa xam ginaar ba ci gëlëm yàggul kat passion yaay woon fii ci booru jumaa ji waaye kat bu ñu xamee ginaar ba ci gëléem dund ko di ko jëf yow yaa màggat yow kat moo tax lii ah waaye lañu séntu li la sëriñ Saliou Mbacke ne say mbir ak mbiru sëriñ Touba daal la tolloo tant que mbiru sëriñ Touba ngi dem say mbir a ngi dem. sëriñ Mbacke kenn mënu laa ko. parce que sëriñ Saliou Mbacke moom kanam rek la jëm. moo tax kat ñu ngi sant bëgguñu ci boole ndax kat mënoon nañ ne caatum ngeloon ko. waaye sëñ Béthio ngi fi ñu ne ci ak moom di dund lii ñuy dund sant nañu Serigne Saliou Mbacké moom ñu boole yaa ñu dimbali yaa ñu defar fii ku fi taxaw wax nga xam ni kii dafa léegi ndax ñun kat man boog la ma daan def mooy damaa ñeewoon ñu dem jamono bi mi ngi sama loxo. ki ne jëriñ mbindeef bi moo ma tax a wàcc ci kaw suuf bu dul woon loolu du ma fi saa ma ni Sëriñ Tuubaa raw ba ma ànd ak yow laa xam ne ndekete yoo Sëriñ Tuubaa dem fenn la mu wax ni ci nit ba ñu topp ko bu ko defoon ci ñu koy wër te duñ ko jóg te nee na julli ñaari rakka moo ko gën a jafe defar nit. waaye jamono ji kuy defaree. Aliou ku ñu defar. Aliou ku ñu defar. sëñ Bello comme sëñ la de. waaw defar di nokkalee soxna ay la sa jëm bi bopp. ndax kat ah dëgg rek a neex moom jëf dina koo jëf ndax du nee nag ci jigéen waaye sëñ Touba kat ah li sëñ Abdou Lahad Mbacké wax waaye dëgg a neex sëñ Touba ay mbiram. féete na kaw sariya tasawuf ndax lii kat mës ta am jigéen ñu naan jigéen mu ne lii mu ne ci yoon wi ku mën na def ñu lay ndokkale de tey sant bu baax a baax ndax danga koo jëf ànd koog sa mbooloo ba pare nag dem jëndi ji nag yi nee nga sëriñ bi kat li ko sëriñ Sall liggéeyal liggéey sëriñ Tuubaa bi jar waaye yow it li mu ne la yaay man may yow li la li la liggéeyam bii jaraw ah gisuma ko de man de mënu ma ko man de lii mënu ma ko moom sax boo demee woon yaay man maay yow mu demee leneen te mënut a demee leneen ndax sëriñ Saliou mi ko yaay man maay yow jàpp ci yow mooy dëgg-dëgg jàpp ci man ku ko def noppal ma àdduna noppal ma àllaaxira dina nga def lu ma neex sëñ bay nii rek la mën a def yow it nii rek nga mën a def nii rek a baax di lool di ñaan mu jëm kanam te kanam nga moo li bi ne taxaw yow sëriñ Béthio soo nga te ñi mu doon convoqué ñu ñu xam ci yoonu murid ne leen kii sama sampa danañ dem ba ñëpp dana Serigne Béthio Serigne Touba li mu wax ban kat bu ko sampoon nit ak jinne ak malaaka àdduna doon ko jéem a suñ bi duñ ci mën dara kon ñi rek la mën a demee sant nañu de tey ndokkale bu baax xam naa jàng kaay waaye dëgg neex sëñ Béthio day dëgg dëgg rek day dëgg sëñ Béthio day dëgg dëgg rek day dëgg

jërëjëf di faat Serigne Bacso. jërëjëf Serigne. Serigne Bacso jaamu Serigne Saliou yàlla si yàgg lool tële. amiin. Serigne Bacso sunu yaakaar tey ak ëllëg yàlla si yàgg lool te gën a wér. amiin amiin. jërëjëf. ñu ngi lay siyaare gën ngaa teel siyaar ñaan nga yàgg si wér. amiin. ndokkale sa ndam lii nga xam ni àdduna séeréer li ngay wax saa su ne ni màggal bi mooy baromètre. ku la ci mën moo la raw te boobaa ne eh, yaay jiitu ci kanam ñu la ci dokkale bu baax di ci kan, ya, bëgg di ci sam waaw ñu ngi ñaan sa jëmm ji nga yàq fi loolu ndax yaay njariñ yaay njariñu àdduna yaay njariñu àllaaxira amin baax ci bokk gi ñu bokk ci sa njariñ ndax Serigne Touba ba mu nee bis bii bu ñëwatee képp koo xam ni sama mbég sa la nga ma ci santale suñu borom nga dimbali ñu ba saa su ne nga ñuy yóbbaale géew ñu doon say taalibe mu neex ñu lool nga def nii nga ñu def dimbali ñu lool te saa yoo amee ndam àddina ñëppay dëgg kon rawatina ñun ñi nga xam ni ñoo taxaw ak yow sant nañ la bu baax di ngeen naan say ndam yi ci yokk di fës saa su nii nga koy defee sant nañu dégg nañu ñu ngi ndokkalee sunu mag. université na Aida ak sa leer yii ci Serigne Khadim Espagne ak mboolem taalibe yi àndoon te mu tijji nag ndax moom lii mu doxee